xaalis xub gerte gi lay maa ngi kañ laa gëj a bëre maa ngi liggéey sama liggéey yaa ngi dégg sama moo tax bëre ma loolu proposé loolu wax na ma pour ma dugg si ma bañ. Mm-hmm. lu ne moo tax maa ngi ñaanal sama mbokki mbër ñi xool teg seen tànk bu baax parce que soo toogee bëre loolu ne la ko jéem a dugal pour nga jëf si dugg pour. ak mbër yi nga wax yi nga xamante ni dañu leen di lim ci nervi yi wala boog ñu naan est-ce que du mbër yi ñooy nekk ay nervi loolu tamit bi nga ko déggee wala nga gis image yi loo ci xalaat. man de sama askan moo ma gën a sama askan moo ma gënal Macky Sall sama askan moo ma gënal Sonko man xeexloo ma kenn. yaa ngi dégg man damay garde maa ngi nuyu sama père Moustapha Sylla maa yàlla xam na ne Moustapha Sylla xam na lay wax xeexloo ma la xulóoloo ma la. billaahi wallaahi dama it su ma xeexloo dama doon xeex parce que man lépp ba koy si yoon dinaa defaan sama sama leader bu ma ànd ko gaañ mais nag ñëw ma pour gaañ askan wi waaw mais dama xam ne ñaar mooy mbëri ñu ni ku fi jël noonu yaa ngi yaa ngi juum quoi sama mbokk xam am na si ma góob ma si am na si parce que ñun Sénégal ñun doo am bon nga. benn vidéo yoo xamante ni ah dañuy mbër ay vidéo noonu gars yi ay mbër noonu ma góob ma bokk nañ ci parce que sooy supporté doo leen gaañee kooku xaw ma ko de te ñun askan Sénégal mënoon mënoon man de intérêt Sénégal moo gën a intérêt président wax dëgg yàlla président moo am si àdduna rek intérêt Sénégal moo gën a kenn nit waaw